قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Ibrahima ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel ci bés bu tedd bi mu mel dañ leen fekk ngeen di jëfe ndigalu sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mel nag ngeen ngeen féete ci mbindum xasaayit yi bëggoon nañu xam ndigal loolu nu ngeen ko jotee ak tey jii nu ngeen ko takkee ba jublu ci liggéey bi bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bi ñu ñaanalee Cheikh Mahamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko te kàttanal ko ci liggéey liggéeyu Cheikhul Xadim bi ah, day mel ne liggéey bi moom euh, liggéey la boo xam ne liggéey liggéeyub sëriñ Touba la ginnaaw bi ñu ci amee ndigalal Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbacke liggéey bi nag day mel ne ni mu sosoo mooy ca at mu jëkk ma nga xam ne sëriñ bi woote na bis bi day mel ne ci la am ñenn ci mbooloo mi ñu yëg na daal lépp loo xam ne woote nañ ko ci liggéeyu sëriñ bi rawatina lu jëm ci xasida yi bind moo ci war a jiitu ndax day mel ne bind moom moo doonoon liggéeyu sëriñ bi ni nga xam ni ko sëriñ bi waxee wax ne damay jaamu yàlla boo xam ne damay liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama ci mbind niki Xassaan kon day mel ne nu yëgoon ne kon mboolem lu waay di liggéeyal sëriñ bi rawatina ci xasida yi mbind moo ca war a jiitu tax ko ca booba nag ñu ne ko nan daje jéem ca bis booba ñu bind ca ab lim ci xasida yi yàlla dogaloon na bindoon nañ ca téeméeri nooru daara yi ni ak lu topp ginnaaw ba bis ba jàllee itam ñu jël liggéey boobu dem jébbal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké sàkku ci moom itam mbooloo mii doon liggéey liggéey bi doon mbooloo moo xam ne mu nosu lay doon moo xam ne day lëkkale mbooleem bindkati sëriñ bi ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ngir féetewoo di liggéeyal sëriñ bi ci wàllu mbind sëriñ bi rafet lu ko lool ànd ci ak nun jox nu aw tur tuddenu Fawaaidud ni ñu nos ko doon mbooloo moo xam ne am nañ ay carte membre yoo xam ne moom la ñu dagg ngir doog cee bokk nos ko nosin woo xamee daal saa boo xamee ne sëriñ bi soxlaati na loo xam ne luñ koy liggéeyal la ci wàllu mbind ñu mën a daje def ko. tey jii nii fu ngeen toll ci liggéey bi. waaw liggéey bi moom fi ñu ci toll uh, ci bisub tey bii moom day mel ne ñu ngi ciy amal liggéey bu am solo. ndax niñ ko defoon ci at yi la jàll di ko jagleel genn xasida di ko bind boole ko yeneen waaye day mel ne at mii nu toll nag ren jii kenn ku nekk gis na taxawaay bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha am na ko ci dëkk bi ak ndigal loolu yi nga xam ne joxe na ko ci la bul Matlabul Fawzayni ba am ñu mu ko jagleel ñu di ko ci liggéeyal di ci liggéeyal sëriñ bi ba bis bu set ñu di ko jàng di ko yëkkati ci ci ndigalam di ko liggéeyal sëriñ bi ak ngir jublu cee sàmm war may dëkk bi day mel moo tax na kon ren ñu tànn xasida ak Matlabul Fawzayni ngir ànd ak Cheikh Mamadul Muntaxa liggéey boobu bi nga xam ne moom lay liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi ndax kenn ku nekk xam na ne dëkk bi moom na sëriñ bi bëgg ku ne mel lépp ci xasida ak Matlabul Fawzayni la ko wax moo tax ren ñu tànnoon xasida ak Matlabul Fawzayni bëgg cee bind ab lim bu takkoo takkoo takku danañ bind xasida yu baree bari yeneen itam waaye jëmmi Matlabul Fawzayni moom gën ngaa néew danañ ci bind ñaar fukk ak juróom-ñett ci bisu tey bii donte it dana ko ëpp waaye gën gaa néew moom danañ fexe ba mat ñaar fukk ak juróom-ñett waaye danañ ko booleeg itam yeneen xasida yu baree bare lu mel ne wakaan xaqan sindi di toxfatu mat la bu chifa yi ak mboolem xasida yi rek fii ba bañu àgg ca waxtu wa nga xam ne ci la di yeewi mbooloo mel na ni euh, liggéey bi dangeen koo tas seen biir mu am mbokk taalibe nga xam ne dañu bind ñeneen ñi gën a féetewoo ci ci taaral geeg ñoom seen tey jii nii bu fekkonte ne mi loo ngeen di apprécier loo ngeen di jàngat bi ngeen dooree ak léegi nu ngeen gisee liggéey bi ci mbind mi waaw xanaa di sant sëriñ bi rek day mel ne bañ ko dooree ba tey moom day mel ne gis nañ ci ak yokkute bu baax a baax ndax day mel ne bi ñu sosee mbooloo mi nos ko ak léegi day mel ne ci ñaari at rek ci la toll day mel ne diirub ñaari at boobu yi nag maanaam ñu ngi ci daje di waxtaan te bëgg rek maanaam lépp ñu di ko gën a méngaleeg ni ko sëriñ bi bëggee ba tax tey jii bi ñu àggee ci bis bii donte sax am na ci lenn ci ay jafe-jafe yoo xam ne xëy na mënta ñàkk ndax am ndaje mel noonu waaye nag nos nañ ko nosin woo xam ne ñiy bind ñi ngi fii di bind saal ca ginnaaw ñay topp itam ña nga fa da topp ndax kenn ku nekk xam ne ne mbind dañ koy saytu ndax day mel ne ku bind juum ku wax juum moo tax buñ ci noppee rek fi saasa ñoo ñi nga xam ne ñoo koy topp dañ koy jël topp ko ñoom itam buñ noppee nu dajalewaat lépp nag dajawaat beneen daje boo xam ne nag dañu dajawaat saytuwaat lépp ba ba rafet njort ci ne xay na lépp loo xam ne ay yàq la te suñ njuum teg doomu aadama waral ko nekkoon na ci ñu fexe mu dañ incha allahu rabbi ñu doog koo jébbal sëriñ bi laaj bi sëñ Ibrahima day gën a ubbeeku mooy yow da ngay yëkkati xasida di ko jàng mu mel ni ren jii at yi yëpp dañ koy gis muy mbokk taalibe yoo xam ne dañuy dem ci barabu tedd bi Makkatal Mukarrama di jàng di yëkkati xasida yi mu am nu ñu koy jàngee noo xam ne suñu mbokk jullit yi dañ koy bàyyi xel lool mu mel ni bokk na ci settantal araf yi waaye tamit di ko jàng ci njàngin wér woo xam ne ku nekkul sénégalais ku nekkul africain wala koo xam ne dégg nga arab rek dinga ko mën a teewlu xam li nga xam ne boo as li ci sëñ bi di junj tey jii nii taxawaay googu noonu nga xam ne moom la mbokk taalibe yi am ci xasida yi ngir di ko jàng njàng mi wér di ko setantal ban taxaw lu ngeen ci am. waaw loolu moom day mel ne njàngat lu gàtt rek lay am ndax day mel ne mbooleem li ñuy def lépp ci sëriñ bi la bàyyi ko muy bind mi ak njàng mi kon day mel ne sëriñ bi moo ko daa bind te it moo ko daa jàng. te sëriñ bi wax na ne moom suñu borom musal na ko ci yàq kon day moom day mel ne loxoom du yàq aw làmmiñam du yàq kon moo taxit it ñiy bind itam war a góorgóorlu ci yàq yi ñiy jàng itam war a góorgóorlu ci yàq yi te yàq gi it maanaam dafa naqari woon sëriñ bi lool ba am na gàmm goo xam ne dafa wax sëriñ ma sàmba ne ko wëral ñiy jàng képp koo xam ne day yàq na génn ndax xasida yi ku koy yàq dangay am bàkkaar ni ngay amee bàkkaar booy yàq alquran képp koo xam ne it neexut baat na génn ku ngeen tere mu bañ nangeen ngeen ko gàcc-gàccal kon day mel ne loola ñoroon na ko lool boo gisee itam maanaam nit ñi di dem ba ca bitim réew ca arab ya di fa wax xasiday sëriñ bi loola di yéem ñooña day mel ne setantal gi ñu settantal euh, li sëriñ bi bind ak ak waxe gi ñu koy waxee ni sëriñ bi bind day mel ne loola mooy tax loola mën a am waaye ku fa demoon it maanaam di wane ne arab ngay wax te la ngay wax ña dégg arab mënuñoo xam lan la kon loola doon arab te sëñ moom arab yu leer nañ ñi lay bind dafa wax ne wahaba allahu tabaraka wa taala li katib hadihi al xuruf alqurana wa lisaan al araba wa wahaba lahu fihima ma lam yakun li gayrihi qattu wala yakun li gayrihi awdu wallahu ala naqul wakil nee na suñu borom da koo jagleel da koo may làmmiñu arab muy bind ci làmmiñu arab ba mu wax ne moom day day liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye nam ko waxe mooy madihan ajiban dëxë man sama fii luxaatihi nee na maam li mu koy liggéeyale mooy da koy defee ci arab yoo xam ne ci tagg yoo xam ne ña nga xam ne dañoo féet ñoo féet kaw ci wàllum loxo sax loola da leen i jommal kon day mel ne mbindum sëriñ bi moom gannaaw sëriñ bi arab lay bind te suñu borom moo araamal ci moom muy way ci lu dul arab kon day mel ne képp ku koy jàng boo ko jàngee na nga ko war a jànge kenn wërta mën a sikki sàkka ci ci na yow mi arab yu wér a wér nga wax arab yoo xam ne kenn féete bu kaw waaw kon nag loolu nag day mel ne moom farlu doomu aadama yi rek la laaj ndax day mel ne njàng mu seet moom jafewut waa ndax araf yi nga xam ne moom la ñuy jàngi lépp ñaar fukki xaraf ak la waaw loolu moom day mel ne lu waay xat-xat wala lu waay tabja tabja itam xa njort naa ne boo ci defee pasteef tuuti rek daal di kon daal di koy man kon day mel ne moom yitte rek la laaj xanaa di ñaan suñu borom gën nu cee dimbali rek tey tey dinu jéggal mboolem li nga xam ne itam noo ngi ko ci dugal tadu suñu coobare ci barkeb sëriñ kii doon wax ci kàddu gi nag mooy Ibrahima kaatibul xadim ji kenn ci mbooloo mi nga xam ne ñooy saytu liggéey bii nu liggéeyal sëriñ bi ci wàllum mbind mbooloo mi mi ngi tudd Fawaa'idu ni di mbooloo mi nga xam ne moo lëkkale bindkati borom Tuubaa yi ci biir réew mi ak ca bitim réew qasaa'idi min mu'jizaatil min mu'jizaatil muntaqa صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن